waaw maa ngi sant yàlla bu baax di gërëm si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul di sant Serigne Touba di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi loolu te wér kër gi na ku ma fa gis dooma laay loo fi wut parce que kër gi dama fa yàgg Serigne Abdoulaye di sama maam di sama Serigne Serigne si di sama waajur di sama Serigne di sama xarit teg si heure bi daaw bi màgg jotee maa ngi aéroport Bruxelles départ war a ñëw si màggal bi ma ñëwee 5 laa wàcc aéroport fi laa fekk sama añ mooy Serigne Touba te Serigne Touba du jeex muy sama xarit fekk naa ko ba Darou Salaam Bourguiba lépp lu ma masa wax gis naa ko kon kooku bu fekkente ni tey bis bi jot na fu ma mën di fekk sa àddina dinaa ko dagg pour ñëw ànd ak taalibe yi pour màggal si ndax man taalibe laa ci kër gi. bi ma ñëwee tamit maa ngi sant ñu mu fekk ñëpp ak ñi nga xam ñoom la ànd si délégation maa nekk fi askan wi ngir ñëw gën a delloo sëriñ bi suñu taalibe gën a fetlu suñu kóllëre xamal ko nu ko ñun amuñu lu du kër gi màggal gi nag képp ko ab jullit nga war nga ko màgg ndax sëriñ Abdou Lahad sëriñ Abdou Lahad jullit ñëpp la rawatina ñun murid yi ndax ku ne xam na ni tey bu yoon wi tollee fii sëriñ Abdou Lahad Mbacké suyee na si rôle bu ama ama ama am solo bu Touba tollee fii sëriñ Abdou Lahad su na si rôle bu ama ama am solo ndax lépp loo xam moo jëm si infrastructure ci dëkk bi sëriñ ab Lahad moo ko def moo def grand euh, daal di kaamil moo miire tamit armel yi kooku nag yaakaar naa ni bu fekkente ni sëriñ Abdou Lahad def na toll noonu képp koo xamante tey jii nekk nga maanaam taalibe foo mën di nekk war ngaa dagg sa yitte pour ñëw fekk si màggal gi ñaanal sëriñ Abdou Lahad mais ñaanal sii di ma yàgg ko taxaw te yàgg te wér. kon nag ñun li ñuy war en tant que taalibe mooy di laas appel murit yëpp ak jullit yëpp te xam li ñu am moo gën ci lépp muy sëriñ Touba jàpp ko. te bañ koo yemale dara te boole ko te nit ku nekk tamit nga gëm sa bopp parce que gëm sa bopp mooy gëm sa sëriñ ñun ay taalibe lañu boo gisee ñu am ambition boo xam ni dañoo bëgg laaj baatu réew mi mooy soppi ak doomu daara jot na xam naa ne cër bi kilifa ni am réew mi war koo jox doomu daara yi ñun ñoo ko war a jël pour jëmmal ko pour que maanaam doomu daara yi mën a gisaat seen bopp. wax naa sëriñ bi ñaanal nañu xam nga ni ko ne xam na ne balaa màgg gi dellusiwaat day fekk maanaam présidentielle bi jàll. te bëgg naa bu màgg del siwaatee ma jiitu réew mi pour ñëwaat sëriñ Sidi pour jox ko lépp nga xamante ne ni réew mi sëñ seeblaata ko mu sëñ Tuubaa ko moom loolu mooy sama tànk di leen sa ndénk